ont droit de le faire pour avoir décliné au la violence s'accentue et le préfet de Dakar invite les politiciens la retenue. On s'est rendu compte que sur les 202 listes que a très peu, à peine 5 ou programme campagne. Or, le fait de ne pas déposer est une violation des dispositions de L59 qui stipule les candidats, dans le cadre la campagne électorale, doivent 24 heures au moins déclarer leurs activités. Le, ce que cela donne comme conséquence de façon malheureuse, c'est que quand vous ne déclarez pas, l'administration n'est pas informée, nous ne pouvons pas prendre les mesures de sauvegarde par anticipation pour éviter qu'il y ait confrontation. Et malheureusement, à Dakar, ce qui se passe, c'est que les caravanes se retrouvent dans les rues à défaut d'avoir fait les déclarations. L'autorité préfectorale a en outre rassuré que toutes les dispositions ont été

En dix jours de campagne électorale, beaucoup de sang a coulé et des dégâts matériels enregistrés dans certains quartiers de Dakar. Nous voilà à la dernière ligne droite, espérant que l'escalade de la violence va s'estomper. Élection présidentielle mauritanienne, la société civile arabe africaine dresse son bilan d'observation et pour les 30 membres de cette organisation, le scrutin s'est déroulé dans la paix. Seule fausse note, la lenteur notée dans le processus de retrait des cartes électorales et la difficulté pour les populations de localiser les centres de vote. Cher Bassirou Sarr le porte-parole de ces observateurs. Il est au micro de nos envoyés spéciaux en Mauritanie, Barkaba et Khalil Ndiaye. À il ressort les constats suivants. Point fort, le climat général de paix et de sérénité qui a marqué le scrutin, l'absence d'incidents majeurs de nature à entacher la sincérité du scrutin, la bonne tenue du scrutin, une mobilisation satisfaisante des électeurs, en particulier celle des femmes, une présence effective et non intimidante des forces de sécurité dans tous les bureaux de vote. Point faible, la difficulté du retrait des cartes d'électeurs par certains citoyens, la difficulté d'orientation de certains électeurs, le problème de localisation de certains bureaux de vote, la non-maîtrise des procédures de dépouillement par certains membres L'actualité internationale avec cette information qui nous vient de nos confrères de Jeune Afrique au Nigeria, deux mois après le kidnapping de plus de 200 lycéennes par le groupe islamiste de Boko Haram. Une milice locale a annoncé mardi l'enlèvement d'une soixantaine de jeunes femmes et de, jeunes filles plutôt, toujours dans le nord-est du pays. Selon les mêmes sources, au moins 30 personnes ont été également tuées ces sept derniers jours. Un message moins agressif. Membres de la minorité peul musulmane ont été tués lundi dans l'attaque de leur campement. Interrogés, les responsables anti-Balaka ont nié toute implication de leurs miliciens dans ces nouvelles violences. Selon eux, l'attaque serait le fait de jeunes incontrôlés agissant de leur propre chef pour des raisons inavouées. Et puis hier, nous vous annoncions la libération de Mariam Ishak, cette Soudanaise condamnée à la peine de mort pour apostasie Eh bien, son calvaire n'est pas terminé. Alors qu'elle essayait de quitter le pays au lendemain de sa libération, elle a été de nouveau arrêtée, accompagnée de son mari, un citoyen américain. Le couple a été emmené dans les locaux du service national de renseignement et de sécurité. Selon ses proches, la jeune femme craint pour sa vie. Un de ses frères a publiquement affirmé que la famille appliquerait la sentence si elle était acquittée. Voilà ce qui clôt euh, cette deuxième édition. Merci de l'avoir suivi. Oui. Malheureusement. xam naa daf ñoo dégg moo tax mu jëlaat ko <laughs> mais on espère quand même que ça va s'arranger on n'a pas encore d'autres informations. Euh, quant à cette euh, voilà elle a été on ne sait pas pourquoi en fait ils l'ont empêché de quitter le pays de toute façon la rédaction vous tiendra informé. de l'évolution de cette situation qu'on espère favorable. Super, on te retrouve tout à l'heure pour d'autres infos. Ce sera à 20h avec euh, Sarah Cissé, 13h le Et puis voilà, toute la journée avec la rédaction ci euh, Télévision Futur Média. À tout à l'heure, Léa. man maa ne lee yaay naan yaa. ok eh, ñu yaa naan yaa. lee ñun lee. Mm-hmm. à tout à l'heure lee. Ah, ah, ah, bëy bi nekk ginnaaw. et eh, bisou. elle devient folle Mado elle devient folle voilà à tout à l'heure Léa. Oh. restez avec nous l'information on continue sur www.gfm.sn toute la journée et puis fàttali leen ni euh, ñu ngi àndandoo ak yéen itam en même temps euh, ci euh, L'Obs ak ci télé bi itam toute la journée des rendez-vous qu'il ne faudra pas rater dina am édition yu ñu jagleel locales yi entre riiru campagne ak journaux yu ñuy présenté ci biir journaux yi jagleel ko campagne électorale bi ak euh, la grande rédaction de télévision Futur Média on poursuit avec les infos comme dañuy boole utile agréable encore on vous souhaite une très bonne journée tout de suite euh, dañuy dem fekki suñu ay correspondant Pape Samba Thiam ay ci yóbbu ma euh, ci carte bi ñu wàcc ci dëkk bi ñu jëm fi ñu jëm nag dëkku Malal Junior la actuellement mu ngi Brésil moo tax gisuñu ko tey mais dañuy dem dëkkam même bu ñu joxul autorisation ñun foofu la ñu alors fi ñu jëm ko dégg xam ni ki ñu fa teewal di Mouhamed Nabi Sylla Nabi euh, ñu ngi lay nuyu naka suba si. ñoo ngi lay fay euh, Pape Cheikh. mbaa jàmm nga fanaane jàmm rek sant yàlla bu wér. alors quelqu'un me fait pourquoi vous les correspondants des radios et télé quand vous parlez c'est comme si vous chantez. Euh, vous chantez. vous. da ngeen mel ni ñuy woy Mouhamed Nabi Sylla <laughs> fii ci Ndar pour RFM. loolu loolu loolu doy na waa peut-être. Euh, Mouhamed Nabi Silla fii ci Saint-Louis pour TFM. <laughs> bon allez euh, euh, lu ñu mën a jàpp comme information foofu ca Ndar. waaw ci ndax li nga xamee nii mën nañ ko jàpp ci wàllub xabaar mu ci fës rek li nga xamee ni aju na ci wàllub lii di ndaje boo am solo boo xam ne dafa jàpp jëm ci wàllub mbayum tamaate. Euh, gannaaw ba nga xamee ni rek ñi yëngatu ci wàllub soble démb wane nañ daal li nga xamee ni jot nañ ko liggéey ci wàllu atum mbay mi ñoom ñu daal di fesal ci ndax su fekkee sax Louga la xewoon Pape Cheikh jaar na ma fàttali ni ci li ëpp li ñuy bay ci wàllub soble diwaanu des gi la mu di zone pot Bouy di zone des Niayes jóge cap Ndakaaru tàllal boobu ngéej gi romb Mboro Fass Boy mhm. mu ci mel ne Potou lew na ñëw ba fi nga xamee ni moo di gànjool gànjool ñu ko xam bu baax a baax ci lépp loo xam ne ak ci wàllub bayub mhm. euh, soble boobu mhm. ak fi nga xamee ni rek moo di njagambal ci Fuuta itam même doguma la sax président président bi mu demee euh, ba mu demee euh, Fuuta nee na na ñëpp def yaa sa waaw waaw waaw waaw daanaka euh, ci pootu la waxee loolu. waaw pootu la ko waxee daanaka daanaka xam naa nag euh, xelam dafa dem ci yaasu poulet. moom boo ko xoolee sax xam ni ku war a bëgg poulet la poulet. moom daal xam naa ni euh, lii di ay. kalam yi daañu ko summi ndax. waaw yëfi poulet intéressé la ko torop moom président Macky Sall. poulet waaw waaw moom xam naa ni yaasu poulet lu ko intéressé la. oui. lu ko inter waaye nag Pape uh-huh. yaasu poulet nag neex na. Uh-huh. waaw yaasu poulet moom. ah. waaw xam naa ñenn ñoo xam ne ay mbay ak wadd la ñu sant. dañu bëgg yaa sa poulet. waaw ñu bëgg. oui mais y' a de quoi y' président def campagne ci yaa sa parce que soble bi defe naa <laughs> soble mbay bi surtout dafa bëgg gars yi di ko gën a euh, jëfandikoo parce que Sénégal am nañu yëpp. waaw am na solo ndax euh, Pape Cheikh. Mhm. deux cent quarante mille tonnes dañu béy ci wàllu soble. ah kon jar na yaa sa ba def cu sax cu kari. waaw waaw te su fekkee deux cent quarante mille tonnes yooyu su béykat <laughs> ak soos mooyoo daa ñu ci trois cent cinquante mille tonnes. ah bëri na te trois cent cinquante mille tonnes yooyu. Hmm? day motal lépp loo xam ne Sénégal daf ko yittewoo ci wàllu soble. Ah. soo xam dañ koy lekk du premier janvier au trente et un décembre. dëgg la de. dégg nga loolu am solo suñ jógee nag ci soble bi dañuy dem ci tomate bi. Euh, euh, euh, tomate. njàmb bi wala loxoti bi. waaw bon tomate njàmb bi. waaw ok ndax tomate njàmb. waaw waaw mooy joxe tomate loxoti. dëgg la. waaw nekk njambay indi loxoti c'est bien dit ah. c'est cool ça voilà uh-huh. loolu. bien dit Nabi. voilà soo gisee euh, tamaate loxoti bi. waaw dafa bari ay façon. dëgg la loolu liggéey bi moo di industriel yi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu tamaate. ok ñi nga xam ne dañuy liggéey nag ci wàllu tamaate ñoom. tey jii ñoo def ndaje pour def seen bilangu campagne. ok ndax jafe-jafe yi nga xamee ni am nañ ko ci wàllub mbay mi. Mm-hmm. li nga xame ni jot nañ ko am ci wàllub succès ci wàllub tamaate ji. Mm-hmm. waaye li nga xamee ni jige woon nañ ko ak industriel yi nga xam ne ñu yëngatu ci wàllub tamaate. Mm-hmm. li ñu waxoon ni dañ koy jënd ci wàllub tonnage ndagam sàmmoo nañ ak lool wala defuñu ko. d'accord waaw léegi Pape Cheikh nag ku jeexal. Euh, ñu dem ba cour d'appel bu Ndang cour d'appel bu Ndang Mm. ëmb juridiction yi nga xam ñoo ngi ci diwaan bu luga maatam ak euh, Ndang mm. euh, premier président cour d'appel bi dafa dajale magistrat yi nga xam ne ni dañu nekk ci ñetti diwaan yooyu di leen tàggat ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu woote yi. très bien rawatina délégué cour d'appel yi. Mm. ak commission yi nga xam amee lépp loo xam ne aju na ci wàllu saytu ak recensement vote yi Pape Cheikh. d'accord voilà kon loolu rek yooyu la ñu mën a jàpp ci information ah tey dem nga Louga ak Ndar ah. waaw waaw waaw waaw daanaka tey jii def nañu lii di ñaay bi. Uh-huh. ak ndax egg sax ba ci euh, liñ naan ba delta. voilà kon ñu ngi lay gërëm bu baax Naby Sylla nga nuyul ñu waa Ndar yëpp. jërëjëf merci bonne journée ñu ngi koy gërëm ah, moo ñu teewal foofu ca euh, Ndar euh, wax ñu li ñu fa mën a jàpp comme information.